talaata gannaaw ay waxtu yu néew ba ñu dooree ay manifeste yoo xamante ne am na altine ñaar fukki fan ak juróom bi lay boo duggee ci mbeddu Dakar yi da ngay daal di gis takk takk yi boo demee wetu rond-point JVC ca Sacré-Cœur ay woto service yu ñu làkk Liberté 5 ci terminus Dakar Dem Dikk bi ñaari bus yu ñu lakk ba mu jeex takk fii nag ci bërëb yi daanaka benn nit nangu ci wax ci caméra yi bu ñu jógee foofu la liberté 6 ci yoon bi ñu rëddal bus rapide transit bi di BRT foofee tamit am na ay yàq-yàq boo ñëwee ci vitre gaal yi nga xamante ne ba tey ñu ngi koy daal di liggéey daanaka li fi jot a yemb yàq nañu ko station service bu rond-point liberté 6 sax bàyyiwuñu ko ci ginnaaw muy situation bu doy waar bu metti lool boo xamante ni dal na ci kaw askanu Sénégal muy ñi fare ci nguur gi wala ñi fare ci kujje gi citoyen yi kenn ci ñoom muccul ci bile mbir. métti na trop métti na trop ci ay jeunes yoo xam ni ñu ngi ñu ngi seen réew moodu moodu wuñu dawuñu dañuy liggéey parce que c'est pas première fois. te li ci gën a garaaw oto bi bañ koy génnee dama am benn waay dama ñëw fekk sama booy bi génnee ko. am beneen bu may génnee parce que ñaari jib la waa ji ñëw di ko waxaale ne ma ñaari jib laa bëggoon ma ne ko xaaral damay dem jëli ko damay gaare oto yi parce que gars dañuy taal fii waa ñëw ñu tasi si koñ bi may génnee oto yi di gaare mu ne ma euh, waaye yow laa doon seet ana oto bi ma ne oto bi de taal nañ ko doyoon na waar daal beneen bërëb bu bokkul ak bërëb yi ñu demoon sànq mu mel ni way jëfkatu ñawte fi jaaraat nañu file jamono ji la ñuy wax yéen ñu ngi ci kanamu kër ki la di Matar Ba nekkoon jawriñ bi yor wàllum tàggat yaram ci biir réew bu Sénégal naka noonu jamono ji mu nekk ministre chef de cabinet bu njiit réew bu Sénégal Macky Sall comme ni ngeen ko gisee sama ginnaaw oto yoo xamante ne dañ leen daal di taal ñetti oto yoo xamante ne moom moo leen moom ak yeneen i oto yoo xamante ne ay dëkkandoom ñoo ko moom ci loolu nag gis ngeen ko naka noonu ci këram ak ci image yi la ngeen koy gis vitres yi yëpp dañuy daal di toj donc euh, métti na trop métti na trop foo ko natt rek weesu na ko. ñu ngi tamit euh, wax état tamit mu ñëw jéem a xool te xam ni lii tamit métti na quoi. ñu woo gouvernement bi mu mel ni nag woote bi lay duggul ci ay nopp ku tëx gouvernement bu Sénégal jël. ay dogal ngir jiitu li nga xamante moom moo xew ci biir réew bu Sénégal jamono jile rawatina ci capitale bi la di Dakar foo dox ci mbedd yi gis takk der yi police gendarmerie force de l'ordre et de sécurité yi ngir ñu mën a jël ay devance ci li nga xamante moom moo xew ci biir réew mi ay kër ak i oto yu ñuy taal bus rapide transit yi ñu yàq vitres yi Dakar nekk ci menace bu rëy capital bi nekk ci situation bu bët setagul